gaa ñi def di xaar xam ñu wuñu ko ba imaam ñëwee hiddatu la wax gaa ña di daw ku nekk naan mana way ba say demee te ñu ñu ko imaam waxoon na say ama mooy sama xel te mooy sama xol te imaam waxam kun am gënu la kon ma gëlëm ñoom ñaar waay moo tax bañ ñu demee sa paas mara السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرة أخرى أصلي وأسلم على حبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحم سيدنا محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم وعلى آله وصحبه وسلم mbokk yi nga xamante ne ba léegi yéen a ngay ànd ak ñun ci Sunrise TV ya ñu leen di dalalaat beneen yoon si plateforme bi di wax nag yoon bi nag ñu ngi dalal suñu mag waaye sunu lépp suñu xarit ki nga xamante ne euh, xal na ñu yàgg tuuti mu nekk ki nga xamante ne it ku ku ku yàlla baaxal boppam la mu bokkit maanaam mu nekk taalibe it góor gi nga xamante ne ku ñëpp xam la di sunu sëriñ sunu kilifa googu di mawlaana Cheikh Saïd Omar Kébé radiyallahu anhum jamian ñu ngi koy dalal nag si plateforme bi ak si event bi nga xamante ne mooy mawlud bi nar waxtaan ak moom si li nga xamante ne mooy event bi waaye nar a waxtaan ak moom si organisation bi nga xamante ne lépp li nga xamante ne ni mooy taxaw si gàmmu gi wala lépp li nga xamante ne programme yi sëriñ bi la organisation boobu ñoo ko yor muy Naylul Huda mu nekk nag seen PR mu ñu dalal ko tey xam naa dañ koy bàyyee kàddu gi mu nuyu ak Sunrise TV waaye mu nuyu ak askan bi incha allah. alhamdulilah alhamdulilah lati haddaana li haza wa ma kunna li nahtadiya lawla an haddaana allah. والصلاة والسلام على أسرف الخلق سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ورضي الله عن قطب المكتوم تاج العارفين الشيخ أحمد بن محمد التجاني رضي الله تعالى عنه آه، شيخ الحاج ديملان آه، نرحب بك ونقول لك أهلا وسهلا ومرحبا شكرا آه، ونحييكم جميعا بأحسن التهية وهي تهية أهل الجنة في الجنة أولها السلامة وسطها الرحمة آخرها البركة الله وهي السلام عليكم wa rahmatullahi taala wa barakatuhu waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakatuhu waaw ah, Cheikh Ndimbalane ñu ngi lay nuyu di la ziar bu baax a baax a baax waaye di julli di salmal si yent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallama ah, di nuyu mbokki julli yi nga xamante ne nii ñu ngi xoolaan Sunrise TV di ko fuloo benn si YouTube bi au Facebook ah, yeneen social media yi nga yep, ni yëpp ñu ngi di leen ziar bu baax a baax a baax waaye di jiital si nuyoo boobu ak ziar bi suñu yaakaaru tey ak ëllëg te suñu wax tey ak ëllëg nag si xadatu saïdiya benn bis la di jiital si nuyoo bu ak ziar bi suñu sëriñ Maulana si Alaaji Saïd bu nu war Kebe di ñaan yàlla yàggal ko fi lool te mu ànd ak wér bi jaay yent sallallahu alayhi wa sallam ñi ngi lay nuyu di la ziyaar di la dalal ak jàmm fii si madinatul anwar ba ñàkka waaye di la ndokkeel itam si weeru yonent bi sallallahu alayhi wa alihi bi lay bàyyi kàddu macha allah kon dégg ngeen kàddu yi nga xamante ne sunu mag moom la tàmbalee yu ay kàddu ak ay néew yu ama am solo ñu koy jaajëfal di ko wax ne seen euh, Cheikh Ibrahim Socé euh, nga nekk si organisation bu ama am solo di Naylul Huda nga nekk fa nag seen pied à xam ne lépp lu ñuy bind sa loxo lay jaar ah Naylul Huda nag nekk organisation bi nga xamante ne bu mucc ayib la bi nga xamante ne aduna bi yëpp ñu ngi seede seen liggéey bu am solo gàmb yi ngeen di taxawal conférence yi ngeen di taxawal maanaam lépp liggéeyu sëriñ bi yéen a koy taxawal loolu rek liggéeyu maanaam nekkul liggéey bu ndaw nga nekk fa nag seen PR xam ne lépp lu ñuy bind sa loxo lay jaar te nag organisation boobu comme jamono nu mu tëddee léegi xam ne organisation bu nekk rek dañuy dañuy faral di dem di registre seen édi seen euh, organisation ñuy laajte ndax Naylul Huda bi nga xamante ne ñëpp ñu ngi koy dégg ndax bokku na si organisation yi nga xamantene recommend recommande ko lu ma miin si recommande neen ko moy place yi nga xamantene war nañ fay dem register ndax nayru huda register nañ fi jërëjëf sandi ma ah xamna naa laajte balaa ñu see dañuy nuyu itam suñu papa Mr President li Cheikh Jim Job, mom mi xamantene ni ah mo jiite nayru huda yëpp xamna an nañ ak yow dem ba ci mom ah mu melni moy jox go ahead ngay jax permission bi mhm. si kàddam itam la ñuy waxee. ñu koy jaajëfal si loolu bu baax a baax. di ko ñaanal yàlla tigi ah, mu mel ni laajte nga lu am solo nag mhm. ah, ñun la yàlla def jamono bi ñu nekk piaro bi mhm. ah, di piaro Nurul Huda mu mel ni ni ko waxee groupe yu bari wala organisation yu bari dañ dee faral di dem di register su ko defee government bi ñuy recommend leen. mun naa wax ne Naylul Huda ah, bii nii bokk na si yooyu. macha allah registré nañ ko. Mm-hmm. am nañ suñu documents yi nga xamante ne lépp lu organisation di am am nañ ko. waaw sart yi nga xamante ni moom la organisation doit itam am nañ ko si tànk yooyu itam seen Naylul Huda ah, taxaw. si yooyu ñu ñuy doxee itam. macha allah ah sëñ macha allah euh, ñu xool di bàyyi xel gàmmu euh, Madinatul Anwar di Banyanka. xam ne man dégg rek laa si doon am mosuma koy seetaan si benn media mosuma koy seetaan fenn waaye tey bu ma ñëwee bu ma gisee tant bi waaye bu ma gisee mbooloo mi nga xamante ne ñu ngi jógee si ay place yu fasante ko di wax ne ñii ñu ngi jógee si bitim réew sax di ñëw di fekkee gàmbu gi kon gàmbu gi nekkatul gàmbu gu ndaw te xam naa mosuta mosuta doon gàmbu gu ndaw parce que fu ñuy màggale yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam même su doon kenn ko doon def sa nekkatu nekkul lu ndaw rawatina gàmmu bi nga xamante ne international la xam ne nit yaa ngi jógee yeneen réew di ñëw di ko fi màggalee kon nag seen liggéey nekk na liggéey bi nga xamante ne bu diis la ñuy laajte naka ngeen dee mobiliser youth si te gis naa ne youth si ñoo gën a bëri si organisation bi te comme ni ñu ko xamee si jamono ji youth yu bëri maanaam àdduna daf leen daf leen nan xam ne ñu ni ñu ngi si yeneen organisation yi nga xamante ne bëriwul njëriñ ñu ngi yeneen ñu ngi si yeneen mbootaay yi nga xamante ne mbootaay àdduna la waaye naka ngeen fexee ba yuut yuut yu bëri yi nga xamante ne man gis naa ko tey nangoñ ñëw ànd ak yéen liggéeyeek ak yéen ngir yàlla waaye liggéey ak yéen ngir sàkku ngërëm sëriñ bi di sunu sëriñ euh, Maulana Saïd Amar euh, Kébé loolu daal jaaxal nañu ndax ngeen fexe ba mobiliser ndaw yi surtout ndaw yi comme nuñ mel si jamono ji macha allah jërëjëf Cheikh Alaaji mel nañ laajte boobu am na solo trop waaye su ma ko bëggoon a gàttal dama na la loolu du liggéey organisation bi loolu liggéeyi Mawlana Serigne Sahel la xaqiqatan ah moom rek nga xamante nii moom la yàlla jël ndaw ñi teg ko si loxoom eh. ndaxte ndaw ñi dafa am luñ bëggoon wala ma ne réew jaamu yàlla dafa am luñ soxla woon muy yàlla muy xam yàlla muy xàmmee yàlla ah mu mel ne loolu mooy liggéey Mawlana Serigne Saint waaye su ma ko bëggee développe dama lay wax ne la liggéeyu gàmmu gi ah dafa am loo xamante ni Mawlana Serigne Saint daf ko siy wax comme yow nu nga ko waxee rek nekkatul gàmm gàmm goo xam ne gu ndaw la ndax mën naa la wax ne la Banjul bekkoy na doo gis tànk bu toll nii. xaqiqatan loolu moom maa ko séddale sama bopp. waaw wëral Banjul bekkoy na doo gis tànk boo xamante ni toll na ni xaqiqatan wool waaw. maa ngi séedee ne lu ma gis fii tey mosuma koo gis si réew mi ñu koy màggalee bi si julli yéen bi sallallahu alayhi wa sallam moom moom maa ngi koy maa ngi koy maa ngi ah, bis boo xamante ni nag te liñ fi gis mu la yéem yëpp taalibe ñoo ko def. macha allah lu fi gis mu la yéem yëpp def. Ah, benn bi mooy ah, suñu waxee ne weer bi taxaw na wala suñu waxee ne gàmmu nañ tey ba ba ñu waxaat gàmmuwaat liggéey taalibe yëpp wala xelal taalibe yëpp fan lay ñëw mooy si gàmm gi te dinaa la waxal leen lu ndaw gis nga gàmm tey tey àllarba su passé ba ñu wax ne na ba yàlla ji tawaat duñ bàyyi benn samedi samedi bu bu jar a gàmm la. macha allah bu jot bi yëpp laa de bu jar a gàmm la. si kër Maolana Serigne Saïd maanaam samedi bu jot dafa am na am na barnaamij bi xew si benn dëkk sometimes sax ñu am ñaari barnaamij si benn samedi macha allah comme last ya demoon na mi nga xamante ni samedi yëpp jeex nañ ñu mujj jël Friday yi teg ko si dañu am Friday gàmmu am samedi gàmmu macha allah ba at bi jeex nag eh, organise nag ndaw yi comme nu nga ko waxee soo ñëwee da ngay gis ndaw ñu bari te kenn koo gis mu ngi liggéey ak sawarte mhm. kenn koo gis mu ngi liggéey ak kontante kenn ko gis ah, li ñu wax ne lu nekk si ah, si xol ni sax mhm. lu muy liggéey dafa mel ni maanaam eh, lu mu yàkkamti woon la tànki wér mooy lu mu doon lu xaar la lu mu doon xaar la li nga xamante ne maanaam mooy mooy fiixal xolam la daf koy liggéey sax di si am di si am contentement mhm. wallaay gis nañ ndaw yi ah, dafa am lu xew mhm. dafa am ba léegi lu waral loolu mooy bis bi ñu tuddee bis yent bi sallallahu alayhi wa yéen tamit sallallahu alayhi wa sallam moom xam ne moom la ñuy màggal ah, sëriñ bi ñu ànd ak mi Maolana sëriñ Sayet daf ñu ko jàngal ñu suñ jëmm yi ñu maanaam ñu xàmmee rasulullah ñu suñ jëmm yi ndaxte dafa am benn ay alquran bu yëpp bu alquran doon wax yàlla daf doon wax yéeféeri màkka yi wala yàlla daf doon wax waa màkka wala yàlla daf doon wax ummatu muhammad ne leen lan duma leen mbugal mukk fekk yent bi sallallahu alayhi mu ngi seen biir léegi nag fekk yent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ngi seen biir boobu dafa am ñum réer ñu ne yent bi sallallahu alayhi wa sallam dee na gis mi yan lañ fogoon waa kay dañ yent yàlla dafa ci gis mi yan gis mi yetti rasul gis mi yetti rasul fekk na bi yàlla bi waxtoon na nit ñi si muhammadiya a da wax nit ñi si rasulu te sëñ bi ànd ak Mawlana Serigne Saint. macha nekkul kuy dee. nekkul kuy dee maanaam yéen du dee. du dee waaye nag Mouhamad. Mhm. comme ni ko Abubakar waxoon. Mhm. man kaana yaabudu Mouhamad faqad qad maat. waaye man kaana yaabudullah. fa bi ànd ak bi Sañet daf ñuy jàngal nañu Mouhamad ibn Abdallah moo magee Mouhamad rasulullah ñeent fukki at. muy wax boo xamante ni nag wax bu yéeme la waaye soo ko toppee moom ndeysaan. daf la koy tudjal étape ak étape bi su da ngay understand yani ni su ko su ko daanelee rek da ngay xam li ñu wax carrément ndaxte Mouhamad Ibn Abdallah mo mo juddoo Makka mhm. di sàmm mhm. juddoo Makka mhm. dem di commerçant waye bimu mu ba am nak ñeen fukki at yalla dal ko cappal gatu rasulullah su ma ko doon jàngal si Adama bar la laa koy jàngale pour nga dégg ko yani president bi ak Adama bar duñ ben Adama bar mo juddoo hon dekk bele ñi wax xama ka wax xama fële ci bori passé jaar fi dem England Gambia am fi ben place di jaay pàkk bo Adama ba la tudon waaye nak bi gàtt president bi ñewé kon mën nañ wax né bala president bi ak adam baro nekkuñ ben du ben du ben president bi grand la won ko yalla légui nak Muhammad bi ak Rasulullah bi ñu ben Muhammad bi jëm la woon waye Rasulullah grand la bu ko yalla garaat boobu nag duy dee ndax yént yi moo ñu ko wax al ulama warasatul anbiya yi borom xam-xam yi ñoom ñoo donnu yénente yi kon borom xam-xam yi ñoom ñooy jël garaat rasul boobu yàlla cappal leen ko léegi garaat boobu nag muy rasul boobu nag moom la ndaw ñi toppee Mawlana Serigne Saïd Mawlana Serigne Saïd xamal ñu ko moo waral ba soo ñëwee fii da ngay gis ndaw ñëpp ñu ngi liggéey ak sawarte yàkkamti bis bi ñëw moo tax lépp lu fi nekk rek ndaw yi ñoo ko fi def. macha allah kon ndaw ñooñu. ah jar neen jaaraamal. <laughs> waaye ndax it jarul ko. jarul ko jarul ko ngir mm-hmm. seen bopp lañ koy. defal seen bopp lañ defal. man amila salihan mm-hmm. fali nafsi mm-hmm. képp ku def lu baax. sa bopp nga koy defal kon képp ngir kuy def lii ngir yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bis bii la juddoon. kon yàlla la koy faral boppam. yàlla la koy faral boppam kon nag ñuy la lu baax. di la jaajëfal jërëjëf. ñuy tëjee fenn rek. mooy li nga xamante ne jamono ji nekk nii. Mhm. maanaam moo moo moo jaxase adduna bi. Mhm. mooy benn waay nekk fële France. Mhm. xam ne ku kenn xamutoon la. at yi rek lañ ko xam. ñu koy wooyee Macron. mu am lu bon ñaaw li nga xamante ne. daf koo wax si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy nuurul wujudi mooy ki nga xamante ne si juddam. amiru shuara dafa waxoon ne wulidal huda fal kainatu diyaau wa famu zamani wa famu zamani tabassumun wa sanaau ku ki nga xamante ne bu mu juddoo rek maanaam kaw na bi lépp a leer lépp lu yàlla lépp lu mbindee fi yàlla rek leeraay yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yegg na waa ji nga xamante ne kenn xamul ko kenn xamul fu mu jógee ñëw di wax si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam li nga xamante ne maanaam jullit ñëpp war ñëpp waroon a taxaw. mitil mhm. lu ko. Mhm. mu teg ko nag ne maanaam freedom of speech la. freedom of maanaam expression la. Mhm. li nga xamante ne ñoom ñu koy wax sa gëmuñ ko. loolu nag en tant que ani euh, taalibe Serigne Saïd Kebbe mi nga xamante ne yonent bi la yonent bi la joxoon léppam. lan ngay wax si si événement yi euh, maanaam xew-xew bu mel noonu. waaw xam xew-xew la boo xamante nii mun naa wane. képp ku julli ku nekk rek war naa am loo yëg sa xol. definitely ndaxte ñun jullit yi. amuñ ko ëpp mu amat. sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Ah, barki démb rek. fii Mawlana Serigne Saïd dafa am lu si jàngale lu rëy. si Muhammad. lu tax ma la képp kuy julli dafa la war a naqari. ndaxte ñun amuñ ko ëpp yent bi sallallahu alayhi wa sallam. même kàccoor boobu sax. nga xam ne mooy taxaw di wax lool si yent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa xamut. ndax moom am gi am. Muhammad moo tax am am gi am Muhammad moo tax am ndate yàlla waxoon na ko yonent bi sallallahu alayhi wa si hadiisul qudsi bi ne ko damaa bind lépp lu am ngir yow sa jëmm ji waaye yow rek laa bind ngir man kon moom makkaroon moomu yàlla daf ko bind ngir yonent bi sallallahu alayhi wa waaye nag dafa am lu xew gis nga jullit yi nañ delloowaat seen bopp si yàlla nañ xam na ñun rasulullahi lañ am mm-hmm. nañ traa ñi nekk benn yi nga suñ nekkee suñ nekkoon benn da nga ne kenn du am fit pour xas yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaye xam nga loolu tamit maanaam sëñ bi mhm. dafa mel ni ñun jullit ñi mhm. wala ñun jàppee ne ñooy suñ kilifa dëgg mhm. ñooñu sànq dama koy wax mu leer nañ tey mamlaka saoudiya islamiya bi nga xamante ne ñëpp dañ jàppoon ne ñooy bopp ñooy bopp l'islam di saoudiya seen king bi eh, seen seen seen seen wali waliyu la ahdi bi seen crown prince bi moo def tatbiix maa Israël def tatbiix ma Amérique maanaam boo di si gannaaw lëkkaloo ak Israël bi nga xamante ne képp kuy julli da xam nga ne yàlla lu mu wax si ñoom si Quran lëkkaloo ñi nga xamante ne ñooy Amérique xam ne ñooy nooni l'islam surtout seen président boobu Saoudi def lool wan gannaaw Palestine bi nga xamante ne Palestine ñun suñu mbokk julli leen place bu nekk Palestine di baytul maqdis jullit ñëpp ko moom waaye nag saoudia mi nga xamante ne moo nekk maanaam ñoom ñoo ñoom ñoo jiite jullit ñëpp comme ni ko ñu bëri fogee wan leen gannaaw ànd ak Israël ñeneen nag ñeneen nit wan leen gannaaw lu mel ni euh, ni Imaaraat ñoom mi def tat biama Israël nga foog ne léegi ñun jarul ñu bàyyi suñu xel xam ñan ñooy suñuy njiit xam ñan la ñuy wala ñan li ñi sentu ci ñom juk ngir ñu mel ni ñom xam naa ne nekul suñu nekkul ci ay nekul ci ci yoon mm-hmm. nekul ci roy way tan mm-hmm. nga wax askan bi bàyyi leen leen xel ci lu mel non waaw li ñu war ak moy suñu mbokk mbokki julit yi dafa jot pour ñu ubi suñu may ni mm-hmm. pour ñu xam liñ am mo moy lan gis nga son dee na la xamal leen gis nga fa yentu sallallahu alayhi wasallam ton billahi wallahi ben naar du gëm yent bi lool mom leer na benn nar nekk jullit waaye ñu dafa am lu xew damay wax ne dañoo xaw a ñàkk fulla wala dañoo xeeb lu ñu am ñu am ñun comme mun naa wax ne ñun West Africa ku mel ni Maolana Seydou Ibrahim ku mel ni moom Alaaji Malick ku mel ni Maolana si Alaaji Saïd ku mel ni Serigne Touba nga xamante ni dañu jëloon seen dund yëpp jox ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ku mel ni Maam Khalifa xam liñ bind ci yentibi sallallahu alayhi wasallam machallah liñ wax ci rasulullah suñu papa bu mag boobu rek suñu papa bu mag cheikh si Alioune Sakho naam ndeysaan nga xamanteni suñu serigne bi di malona serigne sanet neena mhm. nee agge ci daram daf ko wo mu ñew mu ne ko kaay mhm. xam ne ku bëgg yentibi sallallahu alayhi wasallam mhm. wax xamna ne ku bëgg loxo nga jël xam si nga jank mu ne ko lu mu ne ko am siya amna na loxo waye siira la na la wax kan moy rasulullah mu ne gor gi moko ko dalal xam siya jangal ko ko minal bidaya ila nihaya a ah, nga xamante ni Mouhamadou Boussiri moomu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam carrément la wéy léegi ñu am ñeen suñ borom xam-xam yooyu waaye dafa am ñoo xamante ni dañoo gëm ne Saudiya moo nekk ñun suñu marja te gis nga yàlla wala yow sooy fóot sa yére bi tilim ngay fóot waaye bu set doo ko fóot soo gisee yàlla yónni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fekk ne foofu dafa tilim macha allah pour nga yónni yonent bi sallallahu alayhi pour mu kilin ko ñu jégalu bu baax a baax a baax na fekk na fewul ba ba tilim mu yéen fa yent bi sallama salama pour tilim ko sha allah comme tay soy ras ñu ngi jégalu bu baax tay soy ras li tilim moom nga ras fofu tilim ma fa nekkoon moo tax ñu fa yent bi salama pour tilim ko waye ma ngi bàyyiloo xel mbokki julit yi nañ bàyyi nañ xam ñan lañu roy ñu ñooy ñan ndaxte son dia seen dañ ko jébal ña xamanteni ay noni julli la dañ nek talibé taalibe Amérique rek. Amérique nek talibé yi Israël. Israël te gis nga Amérique traay nañ be julli yi ñak baytul maqdis bëkk dim rek maa ngi wax suma suma suma rak yi mel Amérique sen next step bu gaa bëgg a teg kaaba gi la. mum la. ku am ko am jiss ku nek war nga xam loolu. fexe nañ ba ay ñu at aj bi nga xamanteni ay ñoy yi doomi aadama ñoo fa dem. ren ay ñaari junne wala yu demee noonu ñoo fa ñoo aj ñoo fa dem mais nag seen nestem te Cheikh al Islam Alhaji Ibrahima Niass maa ngi dégg si si si kisete muy wax ne dam leen ngeen aji bala nit ñi aaya aj waaye nit ñi dégguñ ko woon dégguñ ko woon léegi lañ koy soog a dégg léegi lañ koy soog a dégg xam nga ñooñu dañ nekk ñoo xamante nii dañu amoon basira xam si su ñuy wax basira ñëpp dañu yaakaar ne bët mooy bët la waaye déedéet ñi gisu xol la yàlla mayoon dañ gis war a xew nes yées nes fukki at ñu wax la ko ndeysaan xoolal ba si Ibrahima Niass di wax loolu ak léegi yàgg na waaye damay wax ne mel Amérique seen neste mooy Kaaba gi ay bañ ay Kaaba gi ndaxte xoolal xoolal King Saudi bi bu yàgg lu mu def rek organisé baal bu mag si Madinatu Madinatu Munawwara subhanallah maanaam Madina Munawwara léegi Munawwara dafa xale maanaam tur bi léegi dafa mel ni ñu ngi koy changé koy changé te lu ma gën a métti bopp lu ma gën a métti sama dund mooy euh, euh, Trump bu mu toogee bees si présidence bi saudi dalal ko biir xaram bi di ko wéyal tola al badru alayna allahu akbar subhanallah sëñ bi wéy boobu bi nga xamante ne yonent bi bu mu jógee Makka di ñëw Madina moom lañ ko teeroo wallaahi naan ko tola al badru alayna wallaahi weer bi weer bi fenk na si ñun weer bi nga xamante ne moo dàq lëndëm indi leer moo dàq réer indi xam-xam indi xam-xam wallaahi fenk na wallaahi maanaam subhanallah dama yaakaar na ñoom dama yaakaar na ñoom ay arab lañ waaye dégguñu dégguñu wéy boobu baat yi lan la ñuy wax allahu akbar wallaahi lasim ndaxte suñu déggoon baat yi lan la ñuy wax ku mel ne Trump duñ taw di ko wéyal loolu di ko di ko di ko di ko taragal di ko ko wéyal mën nañu ko wéyal beneen wéy bu nekk ba mu des tala al badru alayna wallaahi boobu shaar la min shaari shaari islam wallaahi min shaari islam waaye ala kulli halin lu ñu dénk mbokki jullit yi mm. mooy julit na am ful la mm-hmm. nit na xam ki muy topp moom mooy kan mm-hmm. gis nga yàlla mm-hmm. dafa jox doomu aadama lu seer muy dund doomu aadama warta fon warta fontoo dundam ndaxte dund dafa seer te gis nga nit ki su nekkee ne dafa yàlla daf indi fii yàlla wax na ko aba azibtum annama xalaqnaakum abasa ndax da ngeen yaakaar ne dama leen fi indi ngeen i fora déedéet gis nga nit ki nag su ko yàlla isee fii mu caaxaan dundam bi yàlla ne ëllëgee suma radadnaahu asfala saafiliin daf koy delloo ba mu suufe wala bam mu gën a suufe lépp lu yàlla lépp yàlla bind ndaxte lépp lu yàlla bind lu nekk rek doomu aadama moo si gën ndaxte jëmm ji yàlla jox ñi moo gën si lépp lu yàlla bind gis nga jëmm ji nag su ko doomu aadama fontowee respecté ko su fi yàlla jëlee yowmal xiyaam subhaanallah kon nañ bàyyi xel kon nañ bàyyi jëmm ji ñu yàlla jox mooy lan mhm. nañ bàyyi xel triangle gi ñu yàlla jox mooy lan ndax tiraanga mënta màgg ba gën a passé jëmmi doomu aadama ndaxte lépp looy wax tiraanga si àdduna bi doomu aadama moom na ko doomu aadama yëf na ko ba mu des nit nit kenn du ko moom nit kenn du ko jënd nit kenn du ko jaay kon nit dafa foor dafa am lu yàlla def si moom nag doomu aadama bi góorgóorlu xam loolu moom mooy lan na doomu aadama bi góorgóorlu xam lan moo tax yàlla bind Cheikh Ndimbalane mu ngi lay ziar bu baax a baax beneen yoon ah mu mel ni ñu ngi sa time sax si lu bëree bëree bëri waaye ala kulli xaalin dañoo békk sa ñëw gi ndaxte comme nu ko waxee rek yàgg nañ tuuti waaye mu mel ni la ma la waxoon si bi audio bi rek ñun amuñu fa ëpp Madinatul Anwar amuñu ëpp Mawlana Serigne Saint dañu wax ne ñett la am wala ñeent la am ku ko fonkal ku nekk mu fonk la nit ko fonkal bisam mu fonk la nit ku ko fonkal kilifaam ku nekk mu fonk la ni ko xeebal bisam mu xeeb la wax xeebal kilifa mu xeeb la ala kulli xaal ñi ngi bég si yow baax a baax a baax di la njaaraamal waaye di njaaraamal itam mbokk yi nga xamante ni ñooy topp Sunrise TV ah di wax ne Sunrise TV ah na ko mbokki julli di bàyyi xel ndax dañoo ne jant su fenkee lëndëm lëndëm dàqu jant si fenkee réer dàqu kon Sunrise TV si kaw si kanam fu ngeen teg seen tànk foofu la fu ngeen teg seen tànk foofu la ñu leen ñu njaaramal baax a baax a baax di leen ziara beneen yoon ah di jéggalu itam si kàddu yi xamante ni nañ ko fi ah, di wax ne wax neexut waaye lépp loo xam ne wax nañ ko fi te yoon ñu ngi tuub ñu ngi jéggalu loolu taxul ñu woon a cok macha allah kon téléspectateurs yi yéen a déglu sunu mag boobu a it sunu xarit boobu di Cheikh Ibrahim Socé kàddu yu ama am solo yi nga xamante ne dafa fees dell ak xam-xam waaye dafa fees dell ak xikma di xarañ téef ñu ngi koy ñaanal yàlla lépp li nga bëgg yaa ko xam yal na la ko yàlla defal waaye lépp li nga mbébét si ëttam suñu sëriñ xamante ne ah, maanaam moom la ndaw yi nga xamante ne bokk nga seen jiit soxla yal na lañ ko yàlla defal ñu lay jaajëfal bu baax te am contentement bu baax si yow gis nañ ne xam nga torop waaw loolu moom seede nañ ko xam nañ ne xam nga torop waaye jël nga sa waxtu bi yëpp jox ñi ko te waxtaan bi xal na yàgg kon ñu lay jaajëfal bu baax di la ñaanal yàlla di la wax ne waa Sunrise TV kontaan nañ si yow di wax mbokk yi nga xamante ne yeneen stan Sunrise TV ñingi fi ci madinatul anwar di bañaka di leen di wax ne ñingi fetu bis bi nga xamantene mam khalifa dafa waxone ne xayrul fiaali fiaalul xayri majmaahu tabjilu mawlidi khairul khalqi kullihim jëf di gën ci jëf yi mooy maada tabjilu mawlidi xayril xalqi kullihim nga màggal bis bi nga xamante ne yeneen di bu gën si ñëpp nit ki nga xamante ni moo gën lu yàlla bind mhm. moom la judd woon maanaam mhm. màggal ko moo gën mhm. lépp jëf jooju moo gën jooj lépp jëf si bis bi ñu ngi ñaan yàlla lépp li nga xamante ni mbébét neen ko yal nañu ko yàlla defal waaye di leen di wax ne rek ila liqain qarib wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh axukum fillahi alhaaji du Ndimbalane